jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu teelu fii ci euh, Touba Mbacké ci dëkk bu sell bi ci aljumay euh, Touba di bis yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides moo ko woote woon doonoon aljuma fukki fan ak juróom-ñaar ci mai le 17 mai 2024 ak aljuma le 24 mai 2024 loolee nag moom lañ amalaat tey ci aljuma gi fii ci dëkk bu sell bi mu nekk liggéey bu am solo boo xamante nii mbooleem taalibe yi xëy nañ jëfee ko ni nga xam ne noon la ko sëriñ bi euh, bëggee ci euh, zikarulla ci penku jumaa ji ànd koog mbooleem waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall waaye mbooleem euh, point yi nga xamante ni ci biir dëkk bi moo xam buntu kër Serigne Fallou la wéyal nañ fa njàngum xasida gi noonu lañ ko wéyalee ci résidence Khadim Rasoul àndoon ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ni nga xam ne noonu lañ dundalee njàngu xasida gi njàngu alxuraan gi amoon ci biir jumaay Touba ji buntu kër Serigne Saliou noonu lañ ko amee ci biir dëkk bi yëpp fenn fu ci nekk dundal nañ fa li nga xam ne moom moo di njàngum xasida njàngum alxuraanul karim waaye zikarulaa ci ni nga xam ne noonu la ko Serigne bi santaane woon. waaye dégg ngeen kaddu yi nga xam ne kaddu soññee la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ginnaaw bi 18 jotee mu yëkkati ko soñaan mbokk taalibe yi soññu leen bu baax a baax ci ni nga xam ne noonu lañ gën a mën a saxee di sant suñu borom. di sant euh, sant le Serigne Touba suñu borom sant euh, le Serigne Touba ki nga xam ne moom moo di yonent bi sallallahu waaye sant ko suñu diggante ak moom loole nekk kàddu yu am solo waaye lii nekk loo xam ne sëriñ bi soññee na ci nee na dafa nekk loolu dañoo waroon bés bu yàlla sàkk di ko amal waaye nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax dañoo war a sax dàkk di sant sëriñ bi waaye di jaamu yàlla suñu borom kon santaan leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd ngeen àndoon ak ñoom ci àjjumay Touba di ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha mu gën fee yàgg lool te gën a wér waaye ñaanal mboolem taalibe yi ñu gën a yàgg ànd moom bis yi nga xam ne mi ngi koy wooti te lépp luñ fi ñaan yàlla suñu borom nangu ko nekk xéwal yoo xam ne day baawaan ba ci biir réew mi di Sénégal dem ba ci àdduna bi yëpp ñu leen di wax wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf